wa saxbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii ñaan yàlla sunu boroom tabaraka wa taala mu nangul ñu mboolem jaamu ci def ñoo ngi nuyu ak di ziyaare sëriñ bi ñaan yàlla sunu borom yàggal ko ci sunu kanam te may ko fan wu gudd ak wir ba mu yeggale mboolem naalam yi dañ ànd koog moom mbokki jullit yi tey dañoo delsi ci dénkaane sëriñ bi radiallahu taala anhu ndax njariñal mbindeef yi rekk la te bari na lum dénkaane lool te saa dafa bëgg la muy dénkaane ñor gum ko ñor moo tax mu ko doon dénkaane ak bëgg ñu bàyyi ko xel tey jii nag ñu tànn ci boo xamante ni ma ngi ko tàmbulee ci allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi salaatan wa salaaman wa barakatan tajcalu biha hadihi alwasiyata munawiratan li quluubi man taallaqu bina man taallaqu binaadimiha wa tuusiluhum biha ilayka ya alimu ya xakimu ya xabiru amin ya rabbal alamin mu ne ginnaaw bu mu jullee ci yonente bi sant borom bi tabaraka wa taala mi ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka mu def dénkaane bi mu def ko luy leeral xol yi ñi aju ci moom ba noppi itam buñ ca tënkoo ci dénkaane bi mu nekk loo xam ne day leen di jokkale bañ mën a yegg ci yàlla tabaraka wa kon dénkaane boobu lu ko ñor la waaye lu amal njëriñ la itam mbokki jullit yépp rawatina mbokki taalibe yi ndax luy leeral xol di dimbule nit ki itam ba mën a yegg ci yàlla lu mat a bàyyi xel la mu tàmbulee koon ci haakum wasiyatan taduumu naafian kulla saqaain wa gururin daafia mu ne lii ab dénkaane la buy jariñ ku ko topp te day jañal ku ko topp yit te xeedi ak gépp waru mu mel ne dañ ko wax ne ko lu tax mu a jariñ mën a jariñ andil njariñ ki ko topp di ko jañal bépp te xeedi ak ne li kawniha min al ulumi rabbaniya wal mawahib rahmaniya ngir ne mu ne dénkaane bi mi ngi jóge ci xam-xam yu kawe yi nga xamante ni xam-xam yu borom bi la tabaraka wa taala waaye mi ngi jóge itam mayam yu yu bari yi nga xamante ni yërmandeem ju tasaaroo ji rek moo tax mu baaxe ko mbindeef yi biir dénkaane boobu nag mu dénk ñu ci juróom-ñetti mbir ba ci njëkk mu ne istanibu aklal xaraami yaamala falam yazal anil huda mukabbila na ngeen di moytandikoo lekk lu araam yéen mbooloom jullit ñi ndax mu ne lekk lu araam dafay jéng nit ki ba bëggoon def ak njub wala mu koy wax sax lu ko man luy dox diggante nit ki nag ak wax ak njub ak jëf ak njub nag loole amul solo te sëriñ bi nee na lekk lu araam dana dox diggante nit ki <clears throat> dana ko jéng ba bu bëggee am ak njub du ko mën a am mu mel ne dañ koo laaj ne ko lekk lu araam mooy lan mu ne huwa aklu maalam yakun kasba yaminik moy nga lekk loo xamante ni fàgguwoo ko liggéeyoo ko bam lew la walam yatika hadiyatan aw sadaqatan aw istiraa mooy loo xamante ni tam liggéeyoo ko bam lew la waaye kenn mayu la ko jox la ko hadiya kenn saraxu saraxu la ko te itam jëndoo ko ci kenn ci alal ju la lew kon lépp loo xamante ni yaa ngi koy dunde te jëlewoo ko ci sa ñakku bopp kenn joxu la ko hadiya kenn saraxulu ko saraxu ko te jëndoo ko ci kenn nee na loola ku koy dunde yaa ngay dunde ci alal ju araam waaye mu ne nag bokk na ci misaal yi alal ju araam lu mel ne ngay dunde luñ sàcc ñu sàcc wala luñ këf wala ngay laaj nit ñi di leen sarxu ñu lay jox te amoo aajo ju ko far ju ko jar nee na ñett yooyu yëpp bokk na ci lekk lu araam sàcc kooku kenn wérantewu ko ak këf alal joo moomut waaye itam nag laaj alal wala di ñaan alal joo xamante ni ak di ko yalwaanoog sarxu te yàlla tegula ko yéggoo ci cëslay ba mënoo koo ñàkk a def waaye da ngay laaj ngir laaj rek loolu la wax ne amul solo te mu ne nag te ku bëgg a defar àllaa xilaam doo dundee lu araam wala lu lënte ku bëgg defar àllaa xilaam te loolu ñun ñëpp la ñor yàlla ñu ko yàlla defal mu ne ku bëgg a defar àllaa xilaam doo dunde lu araam doo dunde itam lu lënte fa inna man akala xaraaman nasaa anhu fi'lul xaraam kuy dunde lu araam doo mën a jëf lu dul lu araam wa man akala subhatan nasaa anhu fi'lu subhatin kuy dunde lu lënt te moy loo xam ne xamoo dafa araam wala dafa dagan ku koy dunde itam doo mën a def lu dul mu teg ca loo xam ne itam mën naa bàyyi xel nee na kuy dunde lu araam bu bëggoon a topp yàlla sax du ko man xatta inna akila alxaraami law araada an yutia allaha tabaraka wa taala lama qadara ala dalik kon loolu mooy dénkaane bu njëkk mi ngi ñuy xiirtal ci ñuy dunde lew tey mooy tandiku lu araam dénkaanem ñaare ba mu ne fal tamisul xalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa taa nee na nangeen ngeen di sàkk lew waxtu wu nekk ndax nee na boo dee dunde lew ci ngay mën a amee ak njub te loola itam moo lay dimbale ci topp yàlla tabaraka wa la ndax dundelu lew ak sàkk lew sàkk lew di liggéey ba am lu lew bu ñu ko beroon moom rek rek ak jaamu yàlla la gu beruloo su fekkee nit ki mi ngi koy def ngir jëm yàlla nit ki su dee liggéey ngir am lu lew lum mu dundee dundal ci ak njabootam loola rek bu ko defee ngir jëm yàlla jaamu yàlla gu beru la ndax ak njub ak topp kenn du leen séentu ñoom ñaar yooyu lu dul ginnaaw bu nit ka dee dundee lu lew te sax moo tax nit ñu baax ñépp dañuy njëkk a digle nga fàggu lu lew ba am ko bala ngay jóg sax di jaamu yàlla ndax loole boo amee lu lew moo lay dimbale ci top yàlla te boo jaamoo yàlla itam bu neexee yàlla mu nangu ko mu teg ci moom sëriñ bi nag ne soo demee ba am lu lew loolee kat bu ko yàq na nga ko sakkandal ndaxte lu jafe ci jamono ji kon loolu mooy ñaareelu dénkaane bi ginnaaw bi ñu teree ñuy lekk lu araam daf ñoo digal ñuy dunde lu lew ak di liggéey ngir am lu lew ñetteel ba mu ne walaazimu rafdo alladi layan yanfau wa baadiru linnafi xaysu yaqaw nangeen ngeen taqoog bañ lépp loo xamante ni amul njariñ ñu ne ko lu amul njariñ luy misaal mi mu ne kal maasi wallaxa lu mel ne ay moy yàlla ak i caaxaan nee na loolu na ngeen koy bañ ndax amul njariñ ak mooy yàlla ak i caaxaan waaye na ngeen di dëgmal tey dem ci lu am njariñ nag ñu ne ko lu am njariñ mooy lan mu ne maa fihi nafun dunyawi aw uxrawi loo xam ne boo ko xoolee gis ca njariñal àdduna lu lu diine nangu wala njariñal àllaaxira loola am na njariñ kon nee ni nañuy bañ lépp loo xam ne amul njariñ tey dëgmal lépp loo xam ne am na njariñ ndax mu ne ay caaxaan day xëcc kay taqoo ki caaxaan jëm jëme ko ci lu koy lor tey te gaawantu nag waxtu wu nekk jëm ci lu am njariñ day dimbale nit ki bëgg ki sóobu bëgg yegg ci yàlla loolu da koy dimbale ci aw yoonam mu mel na nag daf ñoo wax am na nee na am na yoo xamante nii day bu ko nit ñi jàppee njariñ itam amul njariñ nee na li amul njariñ bokk na ca nga ngay wax ci saw làmmiñ loo xamante nii dikrullahi muy tudd yàlla nekku ca wala lu méngoog tudd yàlla kon dafa bëgg nit ki bu dee wax muy wax loo xam ne dikrullahi tudd yàllaa nga ca wala lu méngoog moom tudd yàlla nag la ci jiitu mooy alquran ak jàng xasida yi nit ñu baax ñi ak wax wax joo xamante ni njariñal àddunaa ngi ci wala njariñal àllaaxira te njariñ loole sariya nangu ko bokk na ci la amul njariñ itam nee na di wiir wiir fu nekk nga xool ko te amoo aajo joo xamante ni moo la ca puus wala ngay lekk te xiifoo wala ngay tukki te amoo njariñ wala loo xamante ni moo la puuse ci ngay tukki allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah أيها الزلاح bismillahi rahmaani rahim kon ñetteelu dénkaane bi sëriñ bi waxoon ne lépp loo xam ne amul njariñ nañ koy bañ te bañ a taqoog moom lépp lu am njariñ itam ñu koy dëgmal mu waxoon nañu bokk na ci la amul njariñ ngay wax wax joo xamante ni tudd yàlla nekku ca ak lu méngook tudd yàlla ak di xool loo xamante ni amoo aajo ju far ju tax nga koy xool ak di lekk te xiifoo ak di tukki te amoo sabab su jar ngay tukki ak di yëngutu sax te gisuñ benn njariñ buy waral ngay yëngutu ak bëgg àddunay kese bëgg àddunay kese nee yooyu yëpp benn amu ci njariñ nañ koy moytandiku mu ne nañ dëgmal ci lu am njariñ ca la ca jiitu nag mooy assalawaatul xams te mooy julli juróom lu am njariñ la nee nañ ko dëgmal te fonk ak di saxoo di naafi di koor koor a nga te di ko def ngir jëm yàlla ñeenteelu dénkaane ba mu ne walaazimul ilma walaazimul amal bila ixtiraarin wal tufaariqul malal nangeen ngeen di sàkk euh, takkook sàkku xam-xam ak di jëfe xam-xam tey bañ a waru te bàyyi tàyyeel ak yokkat ndax mu ne xam-xam day ku bëgg a jaamu yàlla te jaamu ga wér dangay ngay jiital xam-xamu diine bu wér te tàyyeel itam la koy andi tàyyeel gi ma leen di moytandikuloo la koy indi mooy boo dee dundeelu araam dangay ngay ba doo mën a jaamu yàlla waaye itam soo yenee sa bopp ci ak jaamu yàlla loo àttanut tam dana taxal tax nga tàyyeel ci jaamu yàlla te nit ki bu dee tàmbali lu baax mu ndaw mu continuer ca moogën mu bari ba noppi itam te wéy ko bokk na ci wooru googu mu ñuy moytandikuloo mooy ngay sàkku xam-xam ba ne am xam-xam bu bari te nanguwoo koo jëfe nee na loolee ak waru lay doon xam-xam ku am rawatina xam-xamu diine jëfe ko ngoy def ci jaamu yàlla waaye soo baree xam-xam te nanguwoo jëfe na loolu bokk ci buntab waru seytaane da ciy war nit ñi ak fuñ dee waaraate ngay waaru rek ak di fottasu te doo jëfe doo jaamu yàlla nee na loolu itam xeetu waru la bokk waaye nee na bokk na ca ci waru itam di daanu ay jëll te du tax te tax nga jëfe lay waral ngay daanu lañ la wax ba ngay daanu danga nga ne ko ñukk fële te fu ñu waxee nga jug daanu nee na xeet yi yëpp seytaane da ciy war nit ki mu yaakaar ne mi ngi ci lu baax te fekk na lam nekk baaxut ñeenteelu wala juróomeelu dénkaane bi mu ne wala tabaxadu wala taxaasadu wa fi lladi yunmil huda taadadu wala tanaazau fa inna dunya taalibuha laysa yarum musanya bu leen bañante bu leen añaanante te lépp loo xamante ni dañ koy askanale ci ak njub na ngeen cay jàppalante te bu leen xëccoo ngir àdduna rek ndax ku xëccoo àdduna yi kese kese nee na jëfam du baax bañ jullit nag mooy nga bañ ko te gisoo mu def loo xam ne sariyan def laa digal nga bañ ko ngir loola añaan nag mooy nga fekk sa mbokkam jullit mu baax mu yàlla jox ak xéewal nga bëgg xéewal googe deñ ñàkk dimbulante itam ci lu baax ak ñàpp ñàkk jàppalante xeet yi yëpp day tax ñu yiir jaam bi digganteem ak boroomam ba yërmaande yàlla du yegg si ci moom xëccoo ngir mbiram àdduna yi kese itam day yàq jëfi àllaaxira te képp koo xamante ni jëf na lu baax ci àdduna ba nekk lu jëf ju baax ba noppi mënu koo jariñoo ca àllaaxira loola wala yaasu billaahi baaxut juróom-benneelu mbir ma mu ne ca dénkaane ba mu ne walaazimoo tilaawata alquraani li wajhi man naaja bila misaani jàng alquran ngir jëmmi yàlla ma nga xamante ni moo daan deeyaalenteeg jaamam ba di xaritam ba di soppem ba di ko jox ci ay tuyaaba loo ko nee na bokk na ca la leen digal ci ngeen takkoog moom ndax nee na jàng alquran day def ki koy jàng te di ko jàng ngir jëm yàlla te di ko settantal jàng mu muy jàng alquran day dox digganteem ak noonu yàlla yi alquran moo ko wax wa ida qara'ta alqurana ja'alna baynaka wa bayna alladina la yuminuuna bil axirati xijaaban mastura moo tax sëriñ bi feneen mu wax ne kuy jàng alquran am te ci bépp loraange nee na loolu man sëriñ bi dama ko wax tànn ci xel mu dal ak xel mu dal ak xol bu xamante ni bu nangu loolu may wax la man qara al qurana min adan amin qad qultu daawal qalbu minni mutmain moo taxoon nag fonk gi mu fonkoon alquran taxaw na digal na taalibe bu nekk muy saxal di jàng alquran kullu muridin bi yaluudu fal tilawatan li xayri dikrin xadru kon loolu itam ñu koy bàyyi euh, xel di takkoog alquran bët bu set ñu jukki ca jàng ko te def ko ngir jëm yàlla juróom-ñaareel ba mu ne na ngeen takkoog bu ngeen dee jëf wala ngeen di wax nangeen seet la borom bi tànn ta muy lu baax digal leen ko ngeen jël loole jëfandikoo ko ndaxte noo ne loola aw yiw rek moo ca ne wala zimo fil fi'li maxtaar al karim lakum fa fii maxtaarahu xayrun yadum ndax nee na képp koo xam ne jeng na jëm ca la xam ne borom bi tànn ko te nee na na ko wóor ne la àndal boobaa lépp lum jëf wala mu wax ko na ko wóor ne ko ci wéttali mooy saytaane te saytaane nag ànd ak moom amul solo moo tax mu ne wa kullu man maala lima lam yuxtara lahu ladal baaqi alladi ma kaddara saaxabahu seytaanu fi kulli layaad fattabiu amra murabbin dijtihaad na ngeen ni topp ndigalal ab yarekat boo xamante ni boroomu farlu la mu teg ca bayit woo xamante ni nag mi ngi ko jëmale ci mbokkam taalibe moo xamante ni dafa soobu dem cib sëriñ jébbal ko boppam nee na ku mel noonu bu muy yàkkamte ndax su yàkkamtee ba wàcce boppam wala mu cëppeel boppam te amul ngërëmam ngërëm ci sëriñam nee na lam koy jural mooy gàcce fa kullu man fatama nafsahu bila idnin min assayqi l murabbi xajla waaye nag mu ne sëriñ boobee muy wax nag du sëriñ sépp waaye sëriñ soo xam ba nga xamante nii nag dafay tënku ci sunnas yonent bi alayhi salaatu a tax muy wax ba nga xamante ni bu fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegoon tànkam falay jéem a teg ak tànkam di ca roy sëriñ boobaa tax muy wax ne soo ko xasee jébbal sa bopp bul yàkkamti bul cëppeel sa bopp bul wàcce sa bopp toog fa bañ a yàkkamti ba am ngërëmam nee na loolee la ñuy digal ndaxte nee na soo yàkkamtee ba cëppeel sa bopp wala nga wàcce sa bopp nee na gàcce rek la lay indil fa sayxu mu ne walaazimu suyuuxa fi l qurbi wa fi al bondi bimtisaali ma minhum yafi fa sayxu laa yuxaalifu l musafaa faman naxa ridal murabbin tafaa salaatu man jaala xayra mursali safiana ala imaami rusuli kon ci jeexital ji dañuy tënk dénkaane boobu la ca jiitu mooy bàyyi lekk lu araam wala loo xam ne dafa lënte bu ñaareel ba mi ngi ñuy digal ñuy sàkku alal ju lew bu ñetteel ba mi ngi bàyyi lu mi ñuy bàyyiloo lu amul njariñ ci ay wax walla ay jëf ñeenteel ba nañuy takku xam-xam ak jëfe ko te bañ a waru juróomeel ba bàyyi bañante ak añaanante ak xaccoo àddinay kese juróom-benneel ba mooy ñuy takku jàng alquran te di ko def ngir jëmmi yàlla juróom-ñaareel ba ñuy takku jëfi lañu yàlla tànnal ñu jëfe ko ndax loolaay li baax ci nun juróom-ñetteel ba te moo ca mujj mooy ñuy takku sëriñ si jub si tey jubal ña leen topp sëriñ si jub si tey jubal ña leen topp kon ñoo ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu tënk ñu ci yi di ñaan yàlla sunu borom mu yàggal fi bi te may ko fan wu gudd ak wér bam mu yeggale mboolem naa la mi tañ ànd koog moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام الحمد لله الذي فضل ما شاء من الشهور والأيام وعرفنا فيها عوارف التفضيل والإنعام وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا بالإحسان والإحسان والصلة والصلاة والصلاة وسلاما يتصلان ما دامت الليالي الفاضلة متصلة أما بعد فيا أيها الناس إن الله سبحانه أسبغ عليكم نعمةً نعمه منة ولطفا وبدل في بعض الأوقات السيئات بالحسنات وضاعفها ضعفا وخص بعض بعض الشهور بمزايا الفضل ليزيد العامل فيها من الفرض والنفل من ذلك شهركم هذا الذي عظم عند الله ثوابه وفتحت فيه للرحمات أبوابه فالوزر فيه وإن جلت بفضل الله موضوع والعمل الصالح وإن قل برحمته مرفوع والعفو فيه مبذول للمقصرين والرضا مقطوع به للمستغفرين قال عليه الصلاة والسلام من استغفر الله وسأله التوبة في شهر رجب سبعين مرة بالعشي وسبعين مرة بالغداة إن مات ما بينه وبين رجب المستقبل مات شهيدا مرضيا عنه laa tamassuhu nnaar jacalani allahu wa iyaakum min alladina aqradu allaha qardan xasana wa axbatu inna allaha maa alladina attaqaw walladina hum muxsinuun الحمد لله الذي اختار من خلقه نبيا كريما سماه محمدا وأولاه بلواء الحمد مقاما عظيما صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذين سادوا بقربه وأصحابه الذين سعدوا باتباعه وحبه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واقبلوا قول نبيكم وقابلوا بوجه القبول ما به من الجميل أمركم واعملوا فسيرى الله عملكم وأحسنوا kama ahsana allahu ilaykum waalamu anna al ayaama xafiifatu siyaaq wa anna al mawta sariicu lihaaq wa naxnu maa bayna aamaalin nuammiluha wa aajaalin qaruba ajaluha fa baadiru wafaqakum allahu qabla baxti al aajaal بالاشتغال بصالح الأعمال وأكثروا وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والإرسال وفقنا الله وإياكم لما وفق له الصالحين من عباده وجعلني وإياكم ممن ترك اختياره ومراده لاختياره ومراده وقطع أيام عمره في طاعة الله فاجتنى بذلك ثمرة بره ورضاه وتدبروا في ذلك قول مولانا في محكم كتابه المكنون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 allahu akbar sami allahu liman rabbana walaka alhamd allahu akbar allah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 سمع الله ربنا لك الحمد الله أكبر الله Allah asalaamaaleykum. asalaam.